bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim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 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtu wi waxtaanu suba su fi jaar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé delsuwaat nañu beneen yoon fas yi ni wéttalantik yéen ci waxtaanu suba si mu doon waxtaan joo xamante ne julit bi war na ci war mën a gindeeku lenn ci mbiru diineem rawatina la sang bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi na ngi fàttaliku woon keroog buñ doon tàqale ko ak yen ñu ngi yemoon ak yéen ci li xamante ne moom la sahaabi bi di uqbata bun amir radiallahu anhu laajon yonent bi ana lan mooy mucc bi daal ko tegtal ne ko tiil sa làmmiñ ci wax yu amul njëriñ waaye nala sa dikkuwaay doy yaatuwaay te it nanga dugg sa ruqu mën a kan nga joy say bakkaar bu dee lii moo nekk say programme doo fi nekk di taxawaalu doo fi nekk di wax lu ne kon dénkaane boobu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee sahaabi di uqbata bun aamir radiallahu anhu ñëpp ci war a gis seen bopp anam ji nga xamante ne mooy tegtal ba yonentu bi joxoñal sahaabi bi radiallahu anhu suufu xadis bi xam ngeen ne saxaabi bii di uqbata bun amir gannaaw bu mu laajee yonent bi ne ana lan mooy mucc yonent bi joxoñ ko li boroom xam-xam bu mag di sufiyaanu thawri rahimahullah moom it wax na ne jamono bu ñu toll ni jamono yu noppi la bañ a bëri la wax ñu gis ne ndekete ñoom bañ doon tegtal màndargay yinimel ni jumtuwaay ya yor ci jamono ji mooy jumtuwaayu xarala yu bees ya yor nii jamono yooyu suñu jumtuwaayu xarala yu bees yu ñu yor ni yooyu amul waaye xadis bi tey la firndeel boppam ci jamono ji teg sa loxo ci mikoro daldi sànni waaye yàlla la ngay sànni ci jaww ji na doon lay njariñ nit ñi teg sa loxo ci mikoro daldi wax yàlla la ngay wax na doon la nit ñi di njariñu ndax boo toogee ci sa ruq ngay jooy say bakkaar di xalaat ne yàlla buur bi tabaraka wa mu ngi wax ak yow ci suuratul saad aw suuratul qaaf ci alqur'an mu naan la maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul dara la ngay wax yow doomu aadama bi lu raqib ak atid ñu lay wottu ñu ngi lay surveiller kon ba na fa la ñu bëgg a àndandoor xool la suñu yonent bi wax sallallahu alayhi wa ay cira ngi nii tegtalaa ngi nii képp ku ko wattu nga assurel maleen leen yonent bi nee na assurel naa la arjanna moo tax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa admanu lii sittan min anfusikum admanu lakumul janna sallallahu alayhi wa sallam nee admanu lii sittan na ngeen ma garanti ngeen wottul ma ngeen assurel ma juróom benn yi ma leen bëgg a wax si nii juróom benn yaa ngi nii képp ku ko wattu ci sa jëmm ji yenentu bi nee na gaarantil naa la arjanna sallallahu alayhi wa sallam daal tàmbale ne asdaqu ida hadastum ngalla waaye na ngeen dëggu jamono ji di waxtaan bu leen nangu seen waxtaan la ci gën a bari mu doon lay reetaanloo nit ñi walla lay doon ginnaaw dëgg loolu jullit dakay moytu moo tax mu ne bu ci jiitu mooy daqu ida hadastum dee leen wax dëgg ci jamono ji ngeen di waxtaan jamono boo demee bay wax na sa wax bi nekk wax bu dëggu ñaareel bi mu ne wa awfu ida wa'adtum na ngeen matale kóllëre ba ngeen daxelanteeg nit ñi rendez bi nga sëq nit nang ko matale maa ngi ñëw demal ñëwal ding ma fi fekk xaar ko nañu dajeeg béréb sàngam na nga dem buy ñëw bu dul ñëw loolu yow yoroo ko mais yow mi njëkk wax ne nañ fa daje yow nanga dem bu ñëwee alhamdulillah bu ñëwul kon yow wàccoo nga ak la nga moom ak sa jëmm ji nga la nga dëxalante moom ci sa kàddu moo tax mu ne ñaareel bi wa awfu na ngeen matale ida waattum bu ngeen digee nit ab dig na ngeen matali dig boobu ñetteel bi sallallahu alayhi wa ne wa addu ida utmintum na ngeen doon ñu am kóolute gannaaw buñ leen dénkee na ngeen doon ñu wóor ci ndénkaane bañ leen dénk na doon ñu maandu ci ndénkaane bañ leen dénk dénkaane bi nag mën naa doon ndénkaane réew nanga nga matal kóolute ba tax ñu dénk la directeuru société bi noonu njiitu société bi noonu ña koy jàppale noonu nanga doon ku wuur ci ndénkaane bañ la dénk la tax ñu dénk la loolu nga yore nanga nga doon ku wóor ci loolu ñu la dénk moo tax mu ne wa addu na ngeen joxe ida utmintum buñ leen dénkee nangeen joxe kóolute bu mat sëkk ci lañ leen dénk masamba yow lañu dénk lii joxe fa kóolute bi mat sëkk ba ba koy delloo nanka delloo kom nañu la ko joxe woon yow lañu dénk kàddu gi waxee ko comme nañ la ko waxee ba ki la ko wax bu déggee nanga waxee dina xam ne kii kat la mu waxee nii maa ko ko waxee nii waaw kañ la mu joxe nii bi ma ko doon jox nii laa ko joxe woon noonu la ma ko delloowee ngir sàmm joo ko sàmm moo tax mu ne ñetteel bi wa addu na ngeen matal na ngeen joxe na ngeen doon ñu wóor ida utmintum buñ leen wóoloo ba dënk leen na ngeen matale kóolute bu mat sëg ca lañ leen dënk ñeenteel bi mu ne wax waxfadu furujakum ngalla waay na ngeen wattu seeni pays moo xam ku góor gi la yonentu bi nanga sàmm sa bopp ci mooy yàlla sa diggante ak ki la lewul moo xam soxna si la ngalawaay na nga fegu doon ku fegu nanga nga sa bopp bañ di taxawaalu ci diggante góor ñi su ko defee nga bañ a génn ci digg bala yonent bi dig ne juróom benn yi ma bëgg a wax ni képp ku ma ko assurel assurel na la mooy ñeenteelu buntu bi yonent bi ne waxfadu na ngeen wattu furujakum seeni pays yi ku góor ki na sàmm boppam bañ a taxawaalu ci jigéen ñi ci xeetu mooy yàlla wax fasu na ngeen wattu furujakum seen pays bu dee ko jigéen ki la yaa moom bii na nga fegu nangoo doon ko sangewu ngay bañ di taxawaalu ci góor ñi ci xeetu mooy yàlla te ñun nag yàlla def nañu nattoo suñu pinc bi joxe loxo ci la mbir yi di commencé diggante góor ak jigéen bu dee nuyoo dong la doy na rekk salaamaaleykum wa rahmatullah waaw nga ñaanal ko yàlla yal na yàlla may jàmm ak yiw ak barke moom it mu delloo la loolu waaye joxe loxo ñaari tënk yi di daje bu góor ak bu jigéen jaru ko jaru ko wallahi jaru ko ndax yëpp xutuwaatu seytaan ab jéego la ba seytaane di rafetalal jëfu doomu aadama bi bem ko tàbbil ci mooy yàlla bi nga xamante ne yonent bi sala sallam nee na juróom benn yamaleen bëgg a tegtal nii képp ku ma ko assurel dinaa la assurel arjan moo tax bu mu fi àggee mu ne wax fadu na ngeen moytandiku na ngeen ma wattul furujakum seen piy yi ñeenteel bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy juróomeel bi waaw yonent bi sallallahu sallam ne wa gaddu absaarakum na sëgg seeni gët yi na ngeen sàmm seen xoolin yi nu ngeen di xoolee na ngeen ko xam du tey sa kanam nga xool ba ràññeeku ko déedéet jullit du xoolee nii jullit njëlbeenu gis ba muy xool njëlbeenu xool ba muy gis bu ko xoolee may nañ ko loole bu dee lu jara xool la na ko ràññetle bam ko wóor ndax lu ñu wara a xool bu dee lu ñu waruta xool la ci saasi xam na ni lii sama diine bëggul ma di ko xool na sàmm bëtam mu bañ kaa xool bañ kaa sànni foofe noonu la jullit di xoole masalan kom gis ngeen jamono rekk ni mu mel ngeen ne dañoo sàggane seeni bopp bi jéggi dayo képp ku gis ki war a kol ci boppam walla ku war a boppam mu gis bopp neen beeg baat beeg mbagg yi njëlbeenu xool bu mu ko ñaareelaat na xam ne sama diine mayuma may xool lii walla leneen walla feneen ci jëmm jooju càggante tax la mu war nëbb mu wuññi ko ci biti yow mi ne jullit nga sa diine ne la njëlbeeni xool ba ngay xool boo gisee bu dee lu ñu war a xool la na nga ko ràññetle na ko xàmmee waaye bu dee lu ñu warut xool la nanga sànni sa bët feneen bañ ko faa delloo su ko defee dinga mucc ba tax na yonentu bi ne wa gaddu na ngeen ma sàmmal na ngeen sëgg absaarakum seen bët yi ngeen bañ a xool lu ne di gis lu ne ba di ràññetle lu ne jullit du xoolee nii mbokk yi li koy juróom benn yonent bi ne wa kafu aydiyakum na ngeen téye seeni loxo jëmmale ko ci loraange ba ngeen di lor nit ñi fexeel bu kenn sentir métit ci sa loxo fexeel bu kenn sentir métit ci sa bindukaay ya ngay bind say loxo fexeel bu kenn sentir métit ya ngay métitloo nit ki ci say clavier fexeel be bul dóor kenn yaramam di nàcc fexeel sa loxo bu mu naccaloo deretu sa mbokku julit fexeel sa loxo bu mu lor kenn loraange joo xamante ne sa loxo mooy doon sabab jëmmali ko ci jëmm jooju ba tax na mu ne wa kafu na ngeen téye wa kafu na ngeen bànk ay diyakum seeni yoxo ci bépp loraange bi nga xamante ne da ngeen kay lor seen mbokk jullit yi mbokk yi juróom benn yi la yonent bi joxoñ fii nee na képp ku ma ko assureel képp ku ma ko wattul dinaa la wattul arjan képp ku ma assureel fi joxoñ dinaa la assureel arjan ndax la gën a luy tàbbil doomu aadama ci guute lu gën a bari luy tàbbil doomu aadama ci jafeñ-jafeñ lu bari luy tàbbil doomu aadama ci mititu yaram faggutee fu bàkkaar yii mu lim yi ci lañu wax lu du dëgg day tax ngay faggul sa bopp bàkkaar kon del wax dëgg wor dalay taxa nampaloo jikkoy naafeq kon na nga doon ku wóor fecc kóllëre day taxa doon loo nit bi léegi ngay manqué jikkoy naafeq kon nanga doon ku maandu nanga doon ku wóor ñàkk fegu ñàkk téye sa bopp muy góor walla muy jigéen ñàkk téye lan la yonent bi ne ma ko ñàkk sàmm sa bopp ci xeetu mooy yàlla yi non seulement dalay fagguloo bàkkaar waaye bu fa yemee sax est-ce que doo ci faggoo la nga xamante ne mooy feebar ba tax na yonent bi ne na nga doon ku fegu bu dee ku góor ngi na nga doon ku fegu bu dee ku jigéen la na nga téye sa bopp bañ a taxawaalu ci góor ñi bu dee ku góor la na nga téye sa bopp bañ di taxawaalu ci biir jigéen ñi su ko defee mu tegal la ci ne na nga ràññitle lala la islaam xoolloo na nga xool loolu te nga doyloo ko waaye lala la islaam ne bu ko xool bu ko sax jege ba ko xool bay xam lu mu doon bu ci mujj mooy juróom bi yonent bi ne nang ma tiil sa loxo sa bindukaay say clavier bañ di lor nit ñi ci say loxo walla ci say bind lii képp ku ko def sallallahu alayhi wa sallam nee na dina la garantil këru xéewal ba nekk fa yàlla bu ñu naan aljanna yal nañu ko buur yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi bi léegi ñu ngi ànd ak ci émission suba si jaar ci Rewmi FM 97 point 5 xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki yàlla yónni ci xeet bi amul dara la ko yàlla xamal ci lu baax lu dul baaxee na ko askan bi waaye lépp lu mu xam ca lay soril askan bi ci yërmande yàlla wax nañ ñu ko lépp lu ñuy jegel ci xéewalu yàlla tamit wax nañ ñu ko ñàkk gistu moo fi nekk wala ñàkk ko xam wala xam ko bañ kaa jëfe waaye yonentu bi leelar na lépp loo xamante ne xeetam mën nañ ci njëriñu te moom lañuy ñuy góor góorgóorlu di leen ko jottalil fii ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu suba su fi jaar yàlla ñu yàlla may dégg ak tax na sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci xadiisu abi saidin alxudri radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa qaal li ashaabihi taawadu billahi min adabil naar qaalu naudu billahi min adabi naar rawahu muslim mbokk yi xadisu abi saidin alxudri radiallahu anhu nee na naqasuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa musa nekk ak sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain bi léegi ñu déggee ci maana xadis bi yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam daanoon na toog kiram ridwanullahi alayhim ajmain mu di leen jàngal waaye ñu di ko may nopp mu di leen yeggee la nga xamante ne moo leen di njëriñ ci seeni diine bi waaye moo leen di njëriñ ci seen àddina ëllëg bés penc képp ku ci teg sa tànk ci tegtal yamu joxoñ borom bi tabaraka wa taala fay la ko arjanna abi saxidin al xudri yal na ko buur yàlla gërëm nee na dañoo musa nekk ak yonent bi salaa sallam mu ne ñu taawadu na ngeen làqu billahi fa yàlla taawadu na ngeen sàkku muslu ci yàlla min azabi naar ci mbugalu safara qaalu ñoom ñëpp babbeeku daal wax ne naudu billahi min azabi naar ñu ngi làqu fa yàlla di muslu fa yàlla ngir mu musal ñu ci safara ndax safara yàllaa ka moom yàllaa moo fay tàbbil ku ko soob xataa keroog toogaay boobu ñu toog ak sang bi sallallahu alayhi wa sallam mu am yëg-yëg yërmande cofeel bëgg-bëgg bu mu am ci jaami yàlla yi rawatina ña ak moom ci jamono woowu mu am sentiment bu tollu ni ci mititu safara nu mu mel mettitu mbugalu safara nu mu tare mu sentir ko xam ko mu ne àndandoor ya toog ak moom ca jamono jooje na ngeen sàkku muslu fa yàlla ngir mu musal leen ca safara kenn nekku foog di ko laaj lu tax kenn nekku di ko laaj pourquoi kenn nekku fa di ko laaj cest kenn nekkul di ko fa laaj ci diw sangam lay làqu saxaaba yi daal yonent bi daf leneen yonent bi daf leneen taawazu na ngeen muslu billahi fa yàlla min azabi naar safara xaalu ñëpp daldi di bàbbee ko ñu ne ngi muslu fa yàlla min azabi ci mbugalu safara nii lañuy ñuy toppee yonent bi sallallahu alayhi ci tegtal yamu tegtal ngir ñu jëfe ko nii la ñuy toppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ yamu joxoñ ngir ñu dem xool lam ñu joxoñal la mu doon duñ fa nekk di laaj lu tax duñ fa nekk di laaj pourquoi duñ fa nekk di laaj cest à def leen def nañu bàyyi leen bàyyi nañu loolu firnde bi mooy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa andi yàlla ne wa ma ataakum fa xuzuuhu lépp lu leen bi dikkee lépp lum andil lépp lum jox na ngeen ka jël bu fi kenn naan lii laa man lii laa manu dee jëlal waaye nag wama nahaakum an lépp lum leen tere ne lii moom kenn du ko def bu ko kenn def fantahu na ngeen ko sore na ngeen ko bàyyi wattaqullah te ngeen ragal yàlla ci lim leen joxoñal ne na ngeen ko def wattaqullah na ngeen ragal yàlla ci lam leen tere ne leen na ngeen ko bàyyi ah yalla di joxe avertissement nee na képp ko ragalul ci yàlla xamal ne inna allaha naka yàlla de shadidul iqaab ku tar mbëggal yamuy mbëggal jaamam yi firtirlu bañ a topp yàlla bañ a topp ndigle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci Rewmi FM 97.5 waxtaan bi jeexagul dafa fekk ni rek dañoo yegsi fa ñu war a yëkkati jotaay ñu war a jébbal bërëb bi ñu war a joxe xibaar ñu di ñaanal yàlla ak borom kër gi ak mboolem ña ñuy topp ci waxtaanu fajar bi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla ñu yàlla may ñuy dégg la gën a rafet ci kàddu ya ñu dégg waaye ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla yombalal ñu mën kaa jëfe suñu dund bi yomb yàlla yan nañu ko yàlla boole defal amin ya rabbal alamin jaalana allah wa iyaakum min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna axsana allahumma ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi nas'aluka mujibati rahmatik wa ghadaa'ima maghfiratik amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu